jërë ngeen jëf mbokki internet yi nga xamante ni ñu doon suivre ci Bawol TV euh, tey jii nag di màggalu ko Serigne Massamba Mbacke soxna Faati Xafoor woote woon ko moom it fii ci Daaru Karim ànd koog mbokk yi ak xarit yi ak mbooleem ñi nga xamante ni ay soppeem lan ñu amal fi bis bu am solo dañu koy nuyu rek bàyyi ko mu nuyu ak mbokk yi nga xamante ñoom ñoo koy seetaan euh, mu wax ñu bis bi ni mu ko dundee ak jéeg-jéeg bu mu ci am ak sant ak gërëm mboolem ñi nga xamante ni àndoon na ak ñoom bis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wa barakaatu ya Allah. ma sant tv. julli ci yonent bi gërëm sama ñaari waajur xanaa du leen lu am contentement rek contentement mu paasewul nga wote. gis nit ñi loolu pri. prix wax dëgg sama xol dafa sih lool lool lool lool lo lo. Nah, dalam goo gua ne màggal gunjek lah sen xafor diko njëkk def atum ren mi ci kër bopam ñu gis ñëpp melni magal gi ku fi ñëw rek melni magal gi dañ ko yàgg def yéme na dal yéme na dal mënu mo wax sax ci lool ndax xol bu sedd ñëpp ñëw ku ma bokkal bay ñi ma bokkal ke seigne abdou Laxat ñi ma bokkal seigne touba ñëpp ñëpp ñëpp la gis ñëpp ñëw ñëpp ñëw wax deug yalla fess na sama xol lool lool lool maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp bàyyiwuma kenn kenn kenn sama xol daal sedd na. Mhm. Euh, mu mel ni bi nga wootee ñëpp a ñëw njabootu Sëñ Tuubaa gi moom kenn desut ñëpp wuy si nañ soxna yi loolu lu ko waral. ñoom ñoo baax rek ñoom ñoo baax ndax euh, samay wayjur sax dañoo ñëw jur yi ay ñoo xam ne njabootu Sëñ Blaat gi ñëw taalibe yi ñëpp ñëpp ñëpp ñëw loolu daal mbirum yàlla la daal mbirum yàlla daal ak seenu mbaax rek ak seenu oyof. waye wax deug yalla mom liñ ma won fi mom digënté dem ak tay jiwu ma leen ko dé waye lo rek la yok jom rek nga gëna gor gën hmm góorgóorlu. Mhm. kon booy ñaax suñ mbokk soxna yi ci ñu gor góorgóorlu ak liggéey fonk seen bop ñaax ki lan lay. waaw ñaax ki da du leen rek muy nit ku ne mom da nga wara fonk sa bop fonk ki la yàlla booleel am jom am loy bëgg ak loy bañ as gor su amé luy bëgg ak luy bañ rek day neex eh, day yomba dem day yomba dem waye nit ku ne mom war nga am fulak fay fayda sa bop ak jom bañ kula yeb nango liggey te bañ ci tàllal loxo talal loxo as gor du ko def as gor talal loxo dañ gën gor gor te yok jom mhm. bàyyiwuma kenn xale yi xale yi nga xam dañu bëgg faati sidi bi mag gi defé une semaine boobu ba tay tooguñu noppaluwuñu kër goo xam ne chantier la nekk ñoo ñëw ñoo nettoyé ñoo defar lépp lépp togg yi soxna maam Faati Fall bu sëñ ganam sëñ bu laxat moo yore woon togg yi mention spéciale dëgg yàlla gérer togg yi lépp jaar yoon normal ba ñëpp naan ñam yi ñam yi ñam yi nit ku togg lu ñeenti togg ba juróom yoo xam ne benn bokk ak yëpp réussir moom macha allah vraiment kontaan naa daal kontaan naa jërë ngeen jëf. jërë ngeen jëf mbokk yi loolu lañ leen jërele woon fii ci Daaru Karim édition 2024 soxna Maam Faat Sidi ñëpp euh, wuy si ko ba ci way juróom yi njaboot suñu ablaat gi ñoom ñëpp ñu ñëw ku ne bàyyi ko fu nekk ngir ñëw amal ziar tey jii fii ci këram gi nga xamante ni ànd ko Serigne Khafor ñu dundal fi màggal gi ci dundal gu am solo ci xasaayit zikrula mbindum gaayu baax yi ak lépp loo xamante ni baaxoo nañ ko dundal ci bisu gaa yu baax yi ci sunna rek dundal nañ ko fii leele muy joxe ñam macha allah ku fi ñëw rek ber na nga Euh, kon ñu leen jox digg daje ba beneen yoon ci yeneen facette sant leen gërëm leen jërë ngeen jëf. bis yéen ñi fi sëñ fekk nit bu xewlee taaw baayam ñëw ñim bokkal baay ñëw juboo naag ay bokkam ay baayam ñëw ay bàjjanam ñëw juboo naag ay bokkam kii toog doomi Serigne Modou sëñ Abdou Khadir la di Serigne Saliou su fi nekkoon mënoon naa représenté sëñ mii bu baax waaye sëñ nag tànkam yii mooy yëg ko soxna yëg képp. ak soxna bàyyi gum ko def bàyyi defu ko mag waaye def ko bàyyi def ko kilifa def ko léppam sagal nga ko nag mbàkke ndax sëñ Abdou sant na ko gërëm na soxna jàppale na ko ci biir jàppale ko ci biti ndax nit koo gis muy dem am na jàmbaar ju ne ci wetam gu koy jàppale jigéen mooy jàppale borom këram mooy mooy defar kër yàlla dogal nag moom mii mu tudde boppam bay faalum sëñ Abdou Khafour nee naa ko soxna Faati Laasane ba fi ne jël nga sa bopp sa Abdou Lahad mii sa maam jëfam ak ngoram kenn dootu ko werante waye ah, marqué nga sa bop ci bir keur seigne Massamba ñu ngi koy ñaanal bu baax mbacke suñu borom guddal fanam sa yi nak nag nee wu ko ak seigne Sidi nee sa jëm ji ko ak seigne Sidi ndax mom de benn bët la am bayam la ko xol kenn lay roy bayam la bayam lay roy kenn ko doy bayam lay roy nee mom su lepp tasaatoon ñu ni kan nga bëgg mu doon sa bay bëggul kenn di bayam ku dul seigne Sidi ngor gogu nak ak jom joju ci yene ko ñëkke mu roy len ci kon Mbàkke neena xolam sedd na guy fi fekk ñu ngi lay siara di la nuyo neena sagal nga ko lol ndax li ab sag la xewle ci barab fo xamni fa nga nek di liggeel yalla sa taw bay ñew melne ni sa bay ñew na kon sa tànk yi moy tànk sëñ sidi rek moy tànk njabot sëñ blad gep kon ñu ngi lay sante di la gërëm neena njabot njabootu blad gep soona ngi len sante di len gërëm yalla yalla guddal sofante la soona Maram Gay xasa yu na sa la gën a bëgg ci àddinaam ni yàlla bind sa baay la sa baay ko ci gënal loolu nag xam ngeen ko sagal ngeen ko ci yàlla yàlla guddal fanam sa rakk yëpp a nga fee tamit nee na li nga defal soxna ñoom ñëpp noonu nga leen defal nee na sa seen kër yi daa mel ni sa kër nee ñoom nee na ñoom nuñ ko bëggee rek nee na yow noonu nga koy defe mbàkke nee na kenn mënu laa fay yàlla la fa yàlla bàyyi la ba nga yàgg dégg ndigalu sëriñ Sidi yàgg koo jëfe ndax yaa ngi sa wetu bàyyi bëggoo dara bëggoo ci dara li nga bëgg doon mooy ab taalibe bi nga ñëwee xëcc na ma lu ne ngir bëgg ko simple rek ma ne ko nag yaaram soxna Faati ku ne ñëw na fi waaye sa jëmm ji yëmaliwu kook dara nag ndax baayam képp la bëgg ci àddina baayam lay roy dimbali ma rek nga ñëw mu ni ma déet woo ko mu sempal simple rek la bëgg moom waaye nag Mbàkke suñ borom mën a jox cër bi lii soxna da koy sagoo da koy tiitaroo ku ne ñëw na fi waaye sa jëmm ji lay sagoo yàlla yàlla guddal soo fante wéral la jërëjëf Mbàkke sëñ xafoor nag sant la ko waaw sëñ xafoor nag sant la gërëm na sant na gërëm na sagub sëñ xafoor la def na ko ci saayir def ko ci bàtti loolu nag yow la ko defal ndax soo amee sa njaboot ñu nekk dañ war a nekkee loolu yow la ko defal su meloon neneen lay jaaxle waaye nii rek la war a mel yàlla yàlla guddal fanam te wéral ñi fi nekk ñëpp sët sëñ Tuubaa lañ nee naa ko ñi fi nekk ñëpp ñoo la mag te ñëpp kenn defu la ci mag kenn kenn defu la ci rak xarit lañ la def waaye yow yaa leen jox ay mag koo ciy wax da nga naan ñii samay mag lañ xarit lañ la def ndax sa jikko âge amul solo li am solo mooy jikko ju rafet mom nak am nako ko te jeffe nako yalla yalla guddal fa di ko dalal ak jam mu ñew nak fekk ci seigne Abdul khafour mu Serigne Moustapha moom Cheikh Massamba ñu bokku bay bokku lepp bokku bis bi bokku magal gi waye mi ngi saafoonteeg seigne Abdul Ahad mbacké mom Serigne cheikh Amadou mbacké mom Serigne yibou euh, mu ànd ak sëñ Maam Balla Mbàkke moomu Serigne Cheikh Abi waaye bi ñu toogee nag ci la sëñ Mouhamed Samb dugg di soldaru Serigne Touba ñoo ngi koy siyaare bu baax di nuyu bu baax Boubacar Gaajo mii toog mu Cheikh Tidiane Gaajo daaw ci waxtu wi bàyyi ma fi fii mu toog ren ay yitteetee ñu gis ko fi waaye xelam ak xolam ku ne xam ne mi Abdou Khafour Cheikh Mbacke loo mii toog moom sëñ Xaadim loo mi yey baayam ndax Moustapha ko jur Aliou loo jur ko Omar Sène ba mbaarik anta kumba ko dend faaruma suñ lu ko baraanaw saar omarum ndam kii mooy baayam mooy nijaayam kon moom léppam day duggaat ci biir ni sëñ Xaadim sa baay barki démb rek daje nañ France mu lay sant di la gërëm kon yàlla na yàlla yàgg sa taxawaay Serigne Khadim nag eh, eh, soxna Faati nee na mi ngi nuyoo nuyu mboolem kilifa yi mu fi fekk jiital ci soxna Astou Gaïndé Fatma ak soxna Mousli Sall soxna Mame Faati Kebe ak mboolem ñu fi fekk ndax ñëpp ay wëllëreem lan ñëpp ay mbokkam lan di nuyu bu baax sëñ Abdou Khaboor di la sant di la gërëm nee na yow yéen ñaar yéen a bokk baay bi ngeen bokkee baay ba noppi nag nga wëlbatiku doon eh, xaritam. bi nga doonee xaritam ba noppi nag sa waajur ci boppam boolewaat leen ne la sëñ Xaadim ngi noonu woo ko moom wax ko lam koy wax te nee na boobaak tey li mu gis ci yow rëccuwul dara lu la doon defee ni boppam rëccuwul benn yoon ni mu àndanteeg yow nee na waaye nag xaas gi nga xam ni nag moo amaat ci seen diggante mooy kii nga xam ni nag day kenn ci moom muy soxna Maam Faati mi mu sëñ Siidi nee na nag jaw falfara nag moom la ci sëñ Tuubaa def mooy tàbbal gi mu ko tàbbale ci sa loxo ngeen waat yéen ñëpp mu muut boole leen euh, uuf leen nee loolu moom tawféexi sëñ Tuubaa la ci moom nee kon nag day sant tey gërëm sanc bii nag wax na ni màggal gi yéen ñaar a ko bokk moom ma nga fee ci sëñ Maam Mor yow gën a fii waaye nag nee na mooy sa mag kon boo sancee moom moo war a sol dàllam ñëw ànd ak yow sanc bi bokk ñëw liggéey bi ngeen ànd màggal la Seex Masàmba boobaak tey sëñ Maam Mor a ngi koy woo waaye da koo ne lu mu xat-xat faw danaa àgg sëñ Abdou Xafoor ndax day sama rak ba noppi di sama xarit soxna Faati Siidi di kenn ci man kon nag Mbàkke nee na cant gi da leen koy boole di ñaan daal ci barkeb Serigne Touba barke Seex Masàmba borom bis bii yàlla sàmm leen te aar leen bis bi nag ku ciy rëbb ku ne doo sooy ku ciy jiir ku ne di nga jàmm borom bis bi moo ne lépp lu góor di liggéey ci kaw suuf defal naa ko sëñ tubaa seex ma sàmba samaam nee na bayal naa sëñ tubaa ni seex ma sàmba samaam nee na ruujal naa sëriñ tubaa ni seex ma sàmba samaam nee na ni naa sëriñ tubaa waaye seex ma sàmba samaam nee na ni sengal naa sëriñ tubaa rootal naa sëñ tubaa jukkil naa sëñ tubaa bindal naa ko maasal naa ko ni sosal naa ko cent vingt-quatre mille ni xalima nee na liggéeyal naa sëñ tubaa fanweeri at yoo xam ne fukki at ak juróom yu njëkk yi sëñ ma nee na saa bu ma àggee suuf damaa julli nee na fukki at ak juróom yu mujj yi saa bu ma jógee taxaw damaa julli nee na liggéeyal naa ko fanweeri at yoo xam ni musuma summeeku tëdd ndax ni waxtu wu ne ay ndawam dañuy ñëw ci man ni Cheikh Massamba nee na fanweeri at nekk naa ko ci sëñ képp koo xam ni soxla nga Serigne Touba doo laaj fu mu ne danga naan fan la ma Massamba ne ngir xam ni boo toogee ci man ndawal Serigne bi dana la fa fekk koo koy sa maam kon sëñ Xaadim bis bi day bisug pajuk aajo Serigne Fallou Mbacke Kazu Rajab la gane àdduna Cheikh Massamba Kazu Saxbaan Serigne Fallou Kazu Rajab Cheikh Massamba Kazu Saxbaan doon yonent bi ci nag gane àdduna ni fekku fi baayam Serigne Touba may baayam may nijaay may lépp yaayam ku dul ma Massamba jaar nga ci beneen wér di ba mu des moom. mille mille huit cent quatre-vingt-deux la gane àdduna ci bisub tey bii sëñ bi sos yoonu murit 1883 Cheikh Massamba magee yoon wi un bi muy am juróom-ñaari at fekk na daara ji fees na mag ñi jébbalu murit di sëñ Tuubaa di leen yéegee ci yàlla mu naan amara nii rabbi bi an usarrixa bi an na nii malasuno wa mab soxoo loolu la Cheikh Massamba tombeel moo tax ko jàngal alquran la sëñ Mbàkke bu sëñ mi ko jàngal xam-xam murit la maam Cerno mi ko yar di murit kii baayam di magam moo tax ñu naan murit kon bis bi nag bisu paju aajo la soldaar mii nag sa maama ko fayee maamam sëñ Xaadim Lo ne soldaar mii sa maama ko fayee maamam Seex Ibra Jóob Masee dama ne faaxal afaadii la faaxa kawe na afaadii la borom ngëneel yi axlal wal karam ci ñi nga xam ni mooy ñooñ tap ak ñooñ tedd nga ñu ne ñu ne ko kan mu ne ma Sàmba Mbàkke kesul in wal ikam ne Seex ma Sàmba samaam maam tab gi ne ci yéen ci moom ngeen ko doon ne da daan maye di maye ba li muy maye jeex mu leb di maye keroog ba mu ñëwee Kaolack nag maye ba la mu yoroon jeex muy leb naar ba xaw ma tubaab ba ne ko da nga fii tey le bakkan ma door laa jox keroog nag maamam Abdou Karim Samb moom mii moom moo jaayante Cheikh Massamba wër réew mi dee fa dee bi ba mu mat dellu si door koo faye bor bi kon yal na yàlla yàgg sa taxawaay xam nga ko te doxee nga ko ni soxna Faati daal sëñ Xaadim bég na ni xolam sedd na mi ngi ñaan daal ni ci barke sëñ Tuubaa yàlla sàmm leen démb bi ay daayiray boppam yoo xam ne danoo aju ci moom siyaaree ko ko mu takkaat millions yi ci benn say jébalaat sa yabdu xaboor na ko boolewaat daaj sama jëm ak sama lépp la nee na ko dëgg dëgg jàpp ci yow mooy jàpp ci man ne ne wax da leer na kon nak yàlla na yag taxaway bi te yàggal ànd yooyu sëriñ bi ni ngi lay sant kay dun ne or dun ne xaaj dañ nan rubi yak safir yak emerit yak jamaa yi yow ci nga bok waaw yow ko conteneur bi buñ buñ ko ubbee marchandise bi gën ne ci nga bok da ngay sag ci ëtt bi di sag ci kër gi légui bi nga taxawé fé ci Mamor di jabanté di dem di ñew bu la dié nga dem jëlali ko gan wat ko dama ne lii mooy personnalité sa jëm ba ku la gis bëgg la man a sañse loolu ba noppi rafet ba noppi takk laxasaa yi doon ab murit di daw ay yónnanti loolu mooy ak taalibe jaayante ba baadoola du ko def de jaayante alalu noobul la moom sëriñ bii daa mas dem ci sëriñ saaliw sa mbubb yu rafet yi ngay indi ci sëñ saaliw man gën a gën a lu ma man moom moo tax bu may ñëw damay xool ay perkaal ak ay naat wala ay yëre yëre yi tilim ndax damaa xam ne tedd ngay sëñ Saliou waruma sañ si di ko jub sëñ Xaadim loo ne ko tedd nga sëñ Saliou bala moo feeñ da ngay sol magasin bu bees pekk boo xam ne zéro kilomètre la mus salaal laal ndox ni nga ñëw ba jubb sëñ Saliou raam ak moom a ci euh, suuf si mu wone ko su boobaa mbubbum sëñ Saliou yooyu ci lay door am valeur kon jaayam jaayante alalu noobul la kon loolu naam yàlla na yàlla gudd sa fan sunu xol sedd na nee ci ëllëg sa danoo daje ci sëñ bi sëñ bi ne ko mbaa du ngeen roy yee ci sama mbubb yi muy sama mbubb yi may sol mu ne waaye melow yi mu ne leen njëlbeenoowuma ko kon loolu doy naa yam kon jërëjëf kon na tàllal rek sëriñ bi ñaan maamu loolu sëñ Abdou Khafour wax ne sant na ko bu baax kontaan na amin amin yàlla nga fi yàgg loo borom daam amin amin lo borom li lépp ka sëñ Abdou Khafour lay xewe li lépp ka sëñ Abdou Khafour lay xewe ci màggal sëñ Massamba gi li lépp ka sëñ Abdou Khafour lay xewe yàlla na yàgg ñeent fanu koor nag na ko ñëpp waat ci la sëñ Abdou mi du yóbbu ndog